mi ngi wan jamono. jamono barab rek nag moo am. jamono nag ak barab ñoom rek ka xam. kii maanaa la kii jëmm la. kii maanaa la kenn kii jëmm la. jëmm ji mooy barab bi mooy yaa ngi ci toog. jëmm ji moom mooy barab bi yaa ngi ci toog. maanaam mooy jamono ji yaa ngi ci nekk waaye. maanaam it mooy jamono ji xam nga ne yaa ci nekk. waaye mën la cee dugal dara lu muy jëf rek. waaye kat mënoo cee dugal dara lu muy jëf rek nag. barab bi ñu yàlla pareel mooy suñu wàccuwaay. barab bi ñu yàlla ñu pareel mooy suñu wàccuwaay ay jëf. jamono jim ñu pareel mooy suñu wàccuwaay jëf. kon nag. bi yàlla defee guddi tey gii. kon nag bi yàlla defee guddi tey gii. fii ci Medina moom la def muy suñu makkaan. fii ci Medina moom la def muy suñu makkaan. suñ jëf ji nga xam ne moo dugg ci guddi gii. suñ jëf ji nga xam ne moo dugg ci guddi gii. mooy jekki xaale ngir yàlla siyaarante ngir yàlla. moo di jekki xaale ngir yàlla. di siyaarante it ngir yàlla. te loolu yàlla dana ci lu rëy. te loolu yàlla dale na ci dëbu rëy du war ab dëhalam te yàlla moom du war mukk ab dëhalam maa ngi tàmbale woon ci barab ak jamono baaw ne mi ngi tàmbale woon ci barab ak jamono barab yi lu ci gën mooy néegi yàlla yi barab yi lu ci gën mooy néegi yàlla yi na ngeen góorgóorlu di ca di déng déng di ca dem na ngeen góorgóorlu di déng déng di ca dem ak jotaayu borom xam-xam yi joxe xam-xam bu wér. ak jotaayu borom xam-xam bu wér. ñuy joxe xam-xam bu wér. ñuy joxe xam-xam bu wér. jamono yi li ci gën mooy la nga sedd yàlla rek. jamono li ci gën. mooy la nga ca sedd yàlla. weer wi nga weer wi nga ay minutes yi nga su di di rukkoo ko su jóot. yi nga sit di ko rukkoo ko su waxtu yi ngay tudd yàlla ci suba ak ngoon. nga am ci sa lii nga am ci sa barab. loolu nga am ci sa jamono nga am ci sa yéenay liggéey faydu baay ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV